ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu euh, seen teewaay euh, maa ngi tudd Guy Marius euh, Sagna bokk FRAPP ñu am mbégte woo leen fii tey ci màkkaanu FRAPP mbégte bi li ko waral mooy am ay gan yu ama am solo yoo xam ne kenn dootu leen présenter Sénégal waxuma sax Sénégal mais kenn dootu leen présenter Afrique waxuñu sax Afrique mais kenn dootu leen présenter ci àddina ci gan yooyu mooy ñan mooy ñaari organisation yu ñuy woowee benn bi Horizon sans frontières beneen bi Otra Africa ñi fi toogal Horizon sans frontières muy suñu mbokk suñu mag Boubacar Seye mi nga xam ne moo jiite Horizon Sans Frontières ànd fii ak Sana Dabo ki fi toogal nag Otra Africa mooy Souleymane Habib Diallo mi nga xam ne moom itam kenn dootu ko présente ñoom ñaar ñëpp ñu ràññee leen ci euh, ay waxtaan yu bëri ay tomb yu bëri rawatina ci nekk soldaaru euh, suñu mbokk waa diaspora bi rawatina ci nekk la voix de la diaspora africaine en général et sénégalaise en particulier rawatina suñu mbokk faatu faatu ak moodu moodu yi nga xam ne dañoo sonn dañoo torox rawatina ñi nga xam ne ñu ngi jël gaal gi wala jël euh, yoonu désert di Sahara ñooñu kan euh, ñoo fi nekk tey euh, FRAPP am mbégte loolu di leen di dalal tey muy secretariat exécutif national bu FRAPP waaye ñu am fi tamit benn délégation constituée de section université Cheikh Anta Diop de Dakar bu FRAPP waxtaan bi nag ni la nar a demee. dinañ jox kàddu gi euh, suñu mbokk Boubacar euh, Seye euh, mi nga xam ne moom ak Sana Dabo ak Souleymane Habib Sana Sana Sana Dabo ak suñu mbokk Souleymane Habib Alioune Alioune Diallo alors j'ai perdu le fil de ma pensée mais on va donner donc la parole à Boubacar Seye ñu am mbégte loolu euh, recevoir leen ñoom ñett ñëpp euh, fii ci makkaan bi euh, suñu mbokk Boubacar Seye bu waxee ba pare au nom de Horizon sans frontières ñu jox kàddu gi suñu mbokk Alioune Diallo bu Otra Africa ñoom ñaar bu ñu paree mun na am frappe am lum si lum si yokk. bu ñu paree bu dee euh, taskatu xibaar yi ngeen doon am ngeen ay laaj donc euh, je crois que Boubacar Seye ak euh, Alioune Diallo dinañ am mbégte loolu indi ay tontu ci laaj yooyu nga xam ne moom ngeen nara indi. kon ñu jox kàddu gi suñu mbokk suñu gan mi jiite Horizon. sans frontières euh, monsieur Boubacar Seye monsieur Boubacar Seye. jërëjëf Guy Marius euh, jërëjëf aussi ñi ànd ak yow euh, ci mouvement bi ñu tuddee FRAPP euh, man Boubacar Seye. ànd ak Souleymane Aliou Diallo di wax ni suma suma rakk suma xarit suma collègue aussi ñëw gunge si ma euh, ñu ñëw fekk si la fii ak ñi nga àndal euh, ànd ci aussi ak Sana Dabo sama collaborateur ci Horizon Sans Frontières Euh, bëggoon naa sax mu gën a yaatu nii euh, Souleymane Ousmane Tamsir Ba ci Italie mu ngi ñuy suivre euh, mu ngi doon ñaan fekke jotaay bi tey mais malheureusement bis bi souvent day xat ba nga xam ni ku nekk da nekk ci sa soxla bopp mais bëggoon naa mu nekk lu gën a yaatu pour ñëw fekk ci la yow Guy Euh, suma rakk comme ni nga ko waxee suma xarit suma cofeel euh, bis bii nag dafa nekk bis bu rëy ci man bis bu ma doon bu ma yàkkamti woon la aussi waaye tey xam naa suñ dellusiwaatee su l'actualité nationale dinañu santaat yàlla ba mu nekk bisub tey bii parce que c'est symbolique vu l'actualité euh, samay tànku tey nag du dara lu dul ak tànku cant la jëmale ci yow ak ña nga àndal devant tout Sénégal et sa diaspora ak cant ci euh, le rôle essentiel que vous avez joué et le soutien sans faille euh, bi nga xam ni yow ak ña nga àndal ci FRAPP wane ngeen ko lors de mon arrestation et de mon aussi lépp nettali nañ ma ko lépp gis naa ko tamit bi ma génnee euh, moo tax tey dafay jaadu euh, ak ñi ma àndal ñu ñëw tey gërëm leen sant leen ñaanal leen yàlla parce que man nag mënuma leen a fay mais Olof Njaay dafa wax ni soo gërëmul nit doo gërëm yàlla euh, moo tax tey il bon que lu mel ni su fi jotee xew euh, ñu téye ma te mënoon nañ maa téye nga wax leneen wala nga def ni ñeneen parce que àddina moo lale moo tëddee noonu bu boobaa tamit dañ la koy nangul mais ñu téema nga jóg tànk teg sa tànk tubéy xas sa tànk tubéy ni du fi amee dana génn ba àddina bi yépp ràññee lool ci yow kon tey euh, dafay jaadu mu nekk lu rëy ci man mu ñëw fii euh, pour vous témoigner toute ma gratitude pour ñaanal la tey j'aurais peut-être aimé euh, m'en acquitter autrement que par des vœux des prières mais lii rek laa ci mën euh, diaspora bi ñuy dëkk bi ñuy seetaan ñu témoigné ko le peuple sénégalais témoin lii bis bi moo tax mu mag ci man euh, di leen ñaanal yàlla Euh, d'abord suñu borom aar leen euh, tout à l'heure dans le briefing euh, waxuñu fi dara lu dul lu jëmee Sénégal kanam et sa waxuñu fi dara lu dul njariñu Sénégal kenn waxu fi say soxla bopp kon tey nag bu ñu demee ba yàlla boole ñu parce que boo xoolee nag gis nga àddina ñi mën a ànd rek ay ànd noonu la àddina tëdd ñun dañoo mën a ànd moo tax ñu ànd ba tey ñu toog si bu ñu demee nag ba yàlla boole ñu autour d'un seul idéal hmm, autour de l'essentiel autour de li ñu bokk mooy le Sénégal ba boo xoolee nous defendonle les mêmes kon tey damay wax ni loolu sant yàlla la kon Guy Marius yow yàgg ñi àndal maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla aar la euh, yàlla sàmm leen ba nga xam ne seen rêve rêve bi ngeen am ci Sénégal rêve bi ngeen am pour Afrique yàlla dimbali leen ba yàlla mottali ko ngeen fekk ko tal ko lii daal laa xam ni xëy na peut-être du ma nangoo du ma du guddal parce que cant rek la lii rek laa bëggoon te yàlla defal na ma ko tey ñu toog àddina bi yépp gis ñu ma ñëw sant la gërëm la ñaanal la yàlla lii daal laa ni woon tey façon naa ko yaa façon yéene naa ko woon ñaanoon naa ko nga may ñu ko yàgg ñi nga àndal euh, ma am ci mbégte trop di ko témoigner devant cette presse si présente j'en profite aussi pour remercier encore cette presse-là parce que ñun de amuñu benn mérite dans le combat bi ñuy def nii mais yàlla dafa def bi ñu ñëwee Sénégal waxuma sax man sama emprisonnement bi ñu ñëwee Sénégal ba tey euh, le seul soutien constant qu'on nous que nous avons toujours u le seul soutien sans faille sans intérêt bi ñu ci am ba léegi mooy c'est la presse fu ñu toll ci Horizon sans frontières rek. presse bi moo ñu ko may ba keroog bi ñu jàppee presse bi moo jóg parce que si l'information est relayée c'est c'est grâce à la presse keroog bi ñu ma téye am na ñoo xam ni dañu arrêté sax seeni direct jël nit ci Souleymane mii amul plateau yi mu deful fii ci biir Sénégal fu mu fëgg ñu ne ko acca te mënoon na ñoo ñëw ngeen ñu ah déedéet non kooku moom tout sauf lui kon je crois que aussi c'est l'occasion Guy euh, devant vous devant Otra Africa devant Sanadabo devant tous ceux qui la là avec nous devant toute la diaspora pour ñu xam ni kat dans ce combat qui pose des problématiques de dignité humaine de paix de sécurité de dignité et de d'intégrité humaine dans ce combat là am na ci ñoo xam ni kat fu mu egg ñoom la mooy la presse sénégalaise la presse internationale donc ñu leen di sant di leen gërëm gi ma delluwaat la kàddu gi encore une fois kontaan naa trop jërëjëf merci infiniment. merci beaucoup euh, Boubacar euh, peut-être tu intervertir tu peux mën ngeen changer de siège. il euh, euh, suñu mbokk Boubacar Seye. mu wax ci turu Horizon sans frontière bi nga xam ne moom la jiite ñu jox kàddu gi euh, suñu mbokk Aliou Diallo mi nga xam ne moo jiite OTRA Africa euh, Aliou Diallo bismillah. ok euh, Guy euh, je vous remercie je suis très content euh, que vous m'associez à cette rencontre diggante FRAPP ak euh, Boubacar Seye bu Horizon sans frontière il est important de noter que depuis la libération, l'élargissement de Boubacar Sey, c'est la première fois que je prends la parole en public en présence de Boubacar Sey. Parce que depuis lors, euh, j'avais suspendu toute déclaration allant dans ce sens. Mais je me fais le plaisir, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de dignité que je fais face à vous et surtout assister à cette rencontre. Euh, d'une part, pour euh, l'icône aujourd'hui, ce que tu incarnes, que les uns te reconnaissent ou te ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui, tu es vraiment le numéro un par rapport à l'alerte pour l'opinion en ce qui concerne des causes nationales. On te suit de près, on t'encourage. Tu es une voix de la jeunesse, euh, je ne dirais pas sénégalaise, c'est au-delà du, du, Sénégal. Et ça, il est important de le noter. Euh, aujourd'hui, nous faisons face à des contextes très particuliers ou s'il n'y a pas de lanceur d'alerte, si nous laissons aux politiques, à un moment donné, nous n'avons plus d'intérêt. Parlant d'intérêt aujourd'hui, j'aurais bien voulu, à ta présence, interpeller le gouvernement du Sénégal, interpeller le gouvernement espagnol par rapport à des questions qui touchent l'actualité et la vie des Sénégalais. Demain, le président du gouvernement espagnol sera au Sénégal pour discuter des questions d'immigration, de rapatriement de nos frères Mais quelle est la place que les Espagnols d'origine sénégalaise ont jouée par rapport à cette mission? Est-ce qu'ils ont été impliqués? Quelle est leur place? Quelle est la voie? Est-ce qu'ils ont été consultés? Le gouvernement du Sénégal a-t-il tenu compte que ya a des Sénégalais d'origine espagnole qui peuvent apporter, qui peuvent contribuer à l'effort d'éradication de cette immigration clandestine qui gêne aujourd'hui l'Union européenne et qui gêne le gouvernement espagnol à un niveau de faire déplacer le chef d'État pour venir discuter de cela. Est-ce les Sénégalais au premier plan qui vivent en Espagne? Est-ce les Espagnols d'origine sénégalaise qui sont ici au Sénégal ont été associés? Est-ce leur avis a été compté? Est-ce Je pense que sur le plan diplomatique, on dit que parfois la diplomatie est très silencieuse, mais la consultation et la concertation est de mer. Est-ce qu'ils ont été consultés Vraiment, nous, nous sommes en cheval par rapport à cette question. Mais il nous paraissait très important à de pareilles circonstances, que nous avons un mot à dire. Probablement, nous avons des solutions qui ne peuvent pas éradiquer, mais au moins qui peut être un point important par rapport à ces consultations. de très haut niveau, nous, nous sommes au bas niveau, mais que notre avis, que notre voix, que nos revendications et nos observations puissent compter sur ce dossier tant important qui fait déplacer tout un État. Malheureusement, je crois que non. Guy, c'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de fierté que je m'assois sur cette table pour tout ce que tu incarnes. Les jeunes, aujourd'hui, il y a des jeunes universitaires qui sont ici. Tu es leur voix. Les sacrifices que tu es de faire, ne seront pas Demain, tes fils, tes petits-fils, le Sénégal citera Guy Marius Sagna comme exemple. Je vous remercie. Merci Euh, Boubacar euh, Seydabo ak Souleymane Aliou euh, Diallo bu Horizon Sans Frontières ak Otra Africa ñu ngi am mbégte bu rëy rëy di leen di dalal fii suñu suñu mag suñu pap Boubacar Seye moo sàkk woon daje ak ñun waa FRAPP bëggoon waxtaan ak ñun dégg ngeen kàddu yu njëkkam dina jëlaat kàddu gi Euh, ndaje mi nag mu nekk ndaje bu ama am solo ndaxte bi ma nekkee euh, kaso bu euh, Cap Manuel yi ñenn ci prisonnier yi ma fekk Cap Manuel dañ ma doon wax ne Boubacar Seye fii moo nekkoon néegam fii moo nekkoon cellulam donc maa ngi ko doon wax sànq sax avant conférence de presse bi di ñëw am na ñoo xam ne mbiru Boubacar Seye rek lañ ma doon wax mais mbiru Boubacar Sèye ak Horizon Sans Frontières du bi ma demee kaso la coow li commencé biñ ko jàppee même FRAPP sax bu waxoon ne du wax ci Boubacar Sèye du mun nekk ndaxte ay migrants yi ñu rapatrié par avion ñii ñu rapatrié leen par Mauritanie ñoo ñëw fii dajeek ñun di ñu nettali seen i jafe-jafe ci biir waxtaan bi ñu ne ok dinañ wax ak maanaam sénégalais yi dinañ wax ci jafejafe jafe migrants yi waaye ñu ne itam dinañ wax ci situation ki nga xam ne ginnaaw yàlla buñ ko xamee nekkinu diaspora bi la donc kàddu yooyu bu ma ko waxee c'est pour au non du FRAPP euh, wane ne euh, Horizon Sans Frontières ay membres am Boubacar Seye mi nga xam ne moom lañ ci gën a ràññee ah du ñu ñu tuuti ci ci Sénégal du ñu ñu tuuti ci Afrique du ñu ñu ñàkk fayda ci àddina bi taxawaay bu am solo la ñu amal askan wi rawatina diaspora bi moo tax itam biñ ko jàppee mënu ci woon wetti bu ci wéetoon rek day nekk trahison buñ ci wéetoon rek day mel ni dañ leen war euh, ma amoon mbégte bu baax a baax ñu libéré ko. Euh, boobu ak léegi yàlla dogal tey ñu mun gise comme ni ko Boubacar Seye waxee ak Souleymane Aliou euh, Diallo li yàlla di def itam ndaje bi am bés boo xam ne suba la ki nga xam ne moo jiite gouvernement espagnol di egsi fii ci Sénégal te ñun ñépp ñu xam ne li ko fi indi mooy accord yi nga xam ne réew yu mel ni Sénégal réew yu mel ni Mauritanie signé nañ ko ak état espagnol muy accord de la honte muy accord de l'indignité pour rapatrier mboolem migrant boo xam ne yaa ngi ci euh, yaa ngi ci Espagne euh, ñun waa FRAPP nag amoon na solo ñu fàttali ne ci atum 2020 li ñuy woowee îles Canaries ñu ngi xayma ne minimum am na mille migrants yi fa nekkoon ci mille migrants yooyu téeméer boo jël ñeent fukk yi gën saa ñu ngi naan ñu ngi bàyyeekoo Afrique subsaharienne ci 40 pour cent yooyu li ci ëpp ay sénégalais lañu xaw ma ndax dégg ngeen wax ci atum 2020 îles Canaries bokk ci Espagne plus de 23000 migrants nekkoon nañ fa. ci 23000 migrants yooyu quarante pour cent yi ñu ngi bàyyeekoo Afrique subsaharienne ci quarante pour cent yooyu gën saa bëri ñi ci ëpp Sénégal la ñu bàyyeekoo ngeen xam ne kon li ñuy woowee émigration irrégulière ñun sax xëy na du ñu bëgg di ko woowee émigration clandestine ndaxte dañoo jàpp ne réewu tugal yi ñoo am intérêt di ko woowee émigration irrégulière. émigration mënul irrégulière parce que droit de l'homme la waaw émigration mënul mënul irrégulière ndaxte droit de l'homme la votre micro il est très très lourd je ne sais pas si vous pouvez descendre le fer ou l'arranger. Um, émigration mënul irrégulière ndaxte sañ-sañ la mënul plutôt clandestine ndaxte sañ-sañ la waaye mun na irrégulière ci atum 2021 ñu ngi ci mois de avril lu weeru avril ñu ngi xayma ne gën saa tuuti juróom benn junni sénégalais juróom benn junni sénégalais jóge nañ Sénégal ngir dem euh, jaar foofu ca île Canaries waaye bu ñu waxee juróom benn junni mooy ñi nga xam ne egg nañu ñaata ñoo ci dee ci géej gi ñii ñu ngi naan junni ñii ñu ngi naan junni ak juróomi téeméer ñii ñu ngi naan ñaari junni kenn xamul waaye li ci wër wóor mooy ëpp na junni di dem kon nekk na jafe-jafe bu rëy rëy nekk na loo xam ne ah gouvernement du Sénégal état bu Sénégal waroon na xool ban taxawaay la ci am réewu Espagne ngir saafara loolu mu signé ak état bu Sénégal signé ak état bu Mauritanie ay accords yoo xam ne ku fa ñëw mun na la delloo ku fa ñëw mu dugale ci avion delloo may indi la Mauritanie indi la Sénégal Mauritanie dem ba signé loo xam ne nee na doomu Afrique ak fu mu munti bàyyeekoo moom Mauritanie d'accord nañu pour Mauritanie nekk bërëb boo xam ne mun nañ ko fa indi se maanaam Sénégal sax lu mu signé mooy doomu Sénégal mun nañ ko fi indiwaat Mauritanie moom nee na képp kuy doomu Afrique Espagne indi la moom pare na pour jël la waaye muy bu Mauritanie bi. muy euh, accord bi bi état du Sénégal signé ñun ñu ngi koy woowee accord de la honte accord de l'indignité accord de la trahison euh, dañoo jàpp ne war na am un plan d'urgence war na am un plan d'urgence boo xam ne état du Sénégal war na ko jël ngir xool naka lay saafarawee dans les meilleurs délais li nga xam ne moom mooy émigration irrégulière bi ndaxte lii mënatul nekk ñu jàpp ne bu ñu ñàkkalee fayda émigration irrégulière bi li ko waral rek mooy ñoom seen doom jëluñu gaal gi ñoom seen doom jëluñu désert du Sahara waaye doomu béykat doomu sàmmkat doomu ouvrier doomu néew di doole waaw kooku mooy dee ci géej kooku mooy dee ci désert du Sahara donc mun nañ toog seetaan donc mun nañ ne pat mais bu fekkee état du Sénégal nee na fukki nit ak ñeent yi gaañu ci événement yii passé yi tël na ko kon junni nit yii di dee ci géej gi ci désert du Sahara ëpp na ko sax kon xanaa loolu mais dafa waroon yëngal état bi yëpp dafa waroon tax président Macky Sall bi mu waree wax yàgg na donc fokk ñu am benn plan d'urgence euh, ñun euh, waa FRAPP ñuy profité ci occasion bi Euh, pour euh, euh, jaale ñi nga xam ne seen mbokk dena ci désert du Sahara mer Méditerranée océan Atlantique ak ñoom seen yàlla na suuf woyof seen kaw yàlla na yàlla xare aljana di massawu nag suñu mbokk yi nga xam ne bés bu nekk ñu ngi woowaa Horizon Sans Frontières ak Boubacar Seye ñu ngi woowaa Otra Africa ak Souleymane Aliou Diallo ñu ngi woowaa FRAPP ndax nekk Tenerife ndax nekk Las Palmas ak ñoom seen fees fa dell ci nekkin boo xam ne nekk ci gunu ngi naan sax moo ko tane coronavirus bi di leen fa sonnal amuñu fu ñu tëdd amuñu fu ñu amuñu fu ñu lekk ay doomu Sénégal ndeysaan ñooy dajale di leen di indil ñu lekk kon ñu ngi massawu coono xam naa ne yaa ngi ñuy seetaan ñun waa Horizon Sans Frontières ñun waa Otra Africa ñun waa FRAPP ñu ngi leen di wu coono di leen di xamal ne fàttewuñ leen dafa fekk rek ne ah Boubacar Seye nekkul ministre des affaires étrangères dafa fekk rek ne ñu mel ni Souleymane Aliou Diallo euh, nekkuñu euh, xaw ma premier ministre wala wala président conseil économique social et et environnemental et comme nekkuñu ko. wax dëgg yàlla mënuñu mobiliser les moyens de l'État <coughs> waaye suñu xel yépp mu ngi ci yéen suñu xol yépp mu ngi ci yéen ñoo bokk naxar bi ñoo bokk métit bi ñoo bokk jafe-jafe bi ak yéen ah Boubacar Seye dafa naa àddina bi yépp xam na lan moo tax ñu jàppoon ko fii laa koy waxaat état du Sénégal foog mu wax ñu ne xaalis bi muy enkese ci Union européenne pour ñu xeex ñii di jël gaal gi ñii di jël suuf si pour dem tugal xaalis boobu fan la dugg li ñu jàpp sax ne mooy li ëpp ci xaalis bi joxuñu ko ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi eggul ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox ngir kenn dootul jële ji gaal gi kenn dootul jëlati euh, désert du Sahara li am mooy ñi nga xam ne ñooy lekk heure supplémentaire garde pénitentiaire yi ndaxte Boubacar Seye fële ca fële ca Cap Manuel bi ma jógee garde pénitentiaire yi toog ne ñaari weer wala ñetti weer jotuñu seen heure supplémentaire état du Sénégal bi nga xam ne mooy lekk ak ak yelleefu agent pénitentiaire yi état du Sénégal boobu moom moo lekk xaalis bi nga xam ne moom la encaissé ci Union européenne loolu mooy li am moo tax nag état du Sénégal l'état du Sénégal nous doit des comptes mais baax na tamit foofu laay daanelee xëy na ñu situer responsabilité ku nekk foofu lay daanelee état du Sénégal bu ñu buggee xeex dëggantaan njaay li ñuy woowee émigration irrégulière foog mu bàyyi di signé ay accords yoo xam ne day ndóolloo askan wi fekk mu ngi signé ay accords de partenariat économique fekk ñu ngi am monnaie bu fekk ñu ngi appliqué di xaatim lépp lu jóge FMI ak Banque mondiale fekk ñu ngi appliqué les politiques libérales ak néolibérales mooy ku mun sa morom duma téeméer boo jël ci petite et moyenne entreprise du Sénégal 64 pour cent dina si dee loolu mooy le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises au Sénégal fekk li mu petite et moyenne entreprise yu nekk Sénégal téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñeenti dañuy dee balaa ñetti at fekk loolu mu ngi am mais naka naka ngay saafarawee ñàkk xëy ak ñàkk gont bi nga xam ne moo ngëpp ndaw yi et bu mu jaaxal kenn bu fekkee Sénégal trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi chaque année trente mille emplois lañ leen di jox ña ca des ñooy jël gaal gi ña ca des ñooy jël suuf si ñeneen ñi di jaay yàmba fees dell ñeneen ñi di agressé fees dell ñeneen ñi mooy ñun suñu classe gi ne du ñu jaay yàmba du cagatu du ñu agressé du ñu jël gaal du ñu jël désert du Sahara fii lañuy ñuy toog defante ko ba mu saf sàpp ak Macky Sall ak gàngooram mi nga xam ne luubal alal réew mi lañ fi nekkee sàcc alalu réew mi lañ fi nekkee aki alal réew mi lañ fi nekkee ba pare di siñe di signé rek di signé rek lu bon lu ñëw ñu siñe lu bon lu bon lu bon lu ñëw mu signé Macky signature dañoo ne fake politique yooyu mu ngi fi am ba pare a kii moo alal bi di taxawal ay institution aussi inutiles que budgétivores conseil économique social et environnemental HCCT commission nationale du dialogue de territoires au conseil du dialogue social ak ñoom seen du ñu génn ci situation bi ñàkkum xëy nag du xaalis moo koy régler environnement moo koy régler fekk yaa ngi bàyyi entreprise yi bàyyeekoo ci réew yu am doole yi ñëw fii sanc ñuy concurrencer say entreprise di dirante mbagg ak ñoom suñu entreprise sénégalaise yi di tëj ñàkkum xëy bi maanaam chômage bi dina bëri ba pare nag ñu toog di seetaan entreprise étrangère yi di licencier rek di licencier rek di licencier rek di fay ay salaire de misère état bi ne pat ministre du travail ne pat inspection du travail ne pat fekk loolu mu ngi am nit yi dinañ jël gaal yi nit yi dinañ jël désert du Sahara lii mooy responsabilité état du Sénégal et première responsabilité bi état du Sénégal la ndaxte ñun ñu Pedro Sanchez faluñu Macron faluñu Boris Johnson faluñu Joe Biden président Macky Sall la ñu votel président Macky Sall la ñu fal moom mooy suñu président et donc na bàyyi nekk surga Union européenne na bàyyi nekk surga États-Unis na bàyyi nekk surga FMI ak Banque mondiale te nekk surga askanu Sénégal lii moo tax ay at ngeen ñuy dégg ñu naan ñun waa FRAPP nous sommes des anti-impérialistes nous sommes des panafricains ñu naan doomi réew mooy tabax réew marché yu am solo yi nañ ko jox le patronat sénégalais et pas d'y appliquer ay doing business di dérouler le tapis rouge aux entreprises étrangères ñuy ñàkkal fayda doomi réew mooy le patronat sénégalais ñuy ñàkkal fayda doomi réew mooy les entreprises sénégalaises ba téeméer boo jël 64 pour cent des petites et moyennes entreprises des donc président Macky Sall la ñuy demander ay comptes waaye tamit foog ñu wax ak Union européenne waaw waaw foog ñu wax ak Union européenne ne ko suñu géej gii ñu wanteer leen ko ngeen di manque suñu jën ndeysaan suñu sët sax dootuñu xam bu ñu moytuwulee caf ka lii moo tax nappkat yi mënutuñu napp jël seen gaal gi di yóbbu di yóbbu di yóbbu parce que nag lii hypocrisie la Union européenne la ñuy waxal hypocrisie la maanaam naafeq la ñoo européenne bu waxee ne daf ñu bëgg a jàppale te mu signé loo xam ne day manque suñu géej mais dina jur ndóol te bu juree ndóol mais nit bu bëggee dee wékku wékku mooy lan sot dinga nga sot soit di nga cagatu soit di nga naan sot di nga jaay yamba soit di jël gaal gi askan bu bëggee dee wékku naka la askan di wékkuwee mooy bu xiifee amul xëy amul gont mënul ndékki mënul añ mënul reer mënulul dara boppam rawatina baayam ak ndeyam fanweeri at yu teg ñeent fukki at yu teg mu ngi dund kër baayam kër ndeyam bu buggee cigarette sax wala bu buggee xaw ma lan sax yaay booy ñeent fukki at askan bu buggee dee wékku donc waaw émigration irrégulière xeetu wékku la radicalisation bu tax suñu yenn ndaw yi xëy na ñuy dem wuyu ji les organisations terroristes xeetu wékku la lii mooy tamit responsabilité Union européenne seen entreprise yi ñëw fii di def lu leen neex di def lu leen neex dégg ngeen ñu démb wala barki démb ak waa liggéeykatu Eiffage Marine ñuy liggéey 12 heures de temps te 8 heures la ñu signé 4 heures de temps tous les jours de supplémentaires depuis 2019 nga ne doo ko fay dégg ngeen ay weer ci ginnaaw liggéeykatu GCO Eramet ñu licencier leen waaw bés bu nekk ngeen dégg façon yooyu mais dégg ngeen ñu ay weer ci ginnaaw ñu ne leen benn italien moo nekk dëkk bu ñuy woowee Oulampane ca Bignona ñu jox ko suuf mu jël suuf si def si périmètre maraîcher di liggéeyloo jigéenu Oulampane deux cent francs par jour waaw waaw maa ko wax ñeent fukk pour muy leer mais ngeen xam ne juuma ma waxuma deux mille de deux cent francs par jour ñeent fukki dërëm bés bu nekk maa ngi dégg nag sénégalais yu bëri naan ah déedéet déedéet déet lu xew Eiffage Marine ku ko nangu yaa ko def damay liir yenn saay ay sénégalais naan a ah, yéen waa FRAPP da soof ñeent fukki par bés ku ko nangu yaa ko tey mais loo gis leneen loo gis leneen inspection du travail amul njëriñ ministre du travail nekk lu fi liggéeykat yi nekk lu fi baadoolo yi état du Sénégal wala boog président de la République wax yu noppi donc waa Union européenne foog ñu wax leen ñu bàyyi hypocrisie bi ndimbal bu ñuy dimbal naan dañuy xeex immigration irrégulière bu seen entreprise yi doon doxalee na mu waree ñun du ñu soxla dem foofu moo tax may ñëwaat ñun président Macky Sall la ñuy waxal ndaxte Sénégal ak Afrique buñ ko yore woon yorin bu mucc ayib français yi ñooy daw si Afrique français yi ñooy daw ci Afrique bu ñu yore woon Sénégal ak Afrique ci yeneen anam yu mucc ayib espagnol yi ñooy daw ci Sénégal italien yi ñooy daw ci Afrique français yi ñooy daw ci Afrique et non l'inverse donc la responsabilité première mooy état du Sénégal mooy ñun nit yu ñuul mooy ñun ñi ñu fal. waaye nag dañu waxante dëgg Union européenne daf si am wàll sedd de l'hypocrisie beneen bi nag mooy ah ñun askan wi mbokk yi ñun góor ak jigéen ñun askanu senegal il faut ñu xolaat affaire yi de tabaski bu jotee ñu ne xar bii tuuti na duma ko jël xar bii bu mu dugg ci koñ bi. ndaxte kon damay am gàcce ci diggu koñ bi lii la ñuy teg suñu askan moo tax koo gis mu ngi naan day dem Espagne itali uti xaalis foog ñu xoolaat suñu bopp ngénte walla céet bu jotee ñu ne déedéet déedéet xaw ma may gu jëkk 5 millions mais pression boobu boo ko tegee ci askan nécessairement dina def lu mu mun ak lu mu munul te li muy jàpp mooy bu ma demee bitim réew ci laay gën a gaaw a dajale ndaxte ndeysaan du ma wax ñoom Boubacar Seye ak euh, Souleymane Aliou Diallo mais bëri na si ñoo xam ne ndeysaan bu ñu ñibbisee tugal bu ñu ñëwee fii di jaay costume ak oto ak gaaw a tabax boo dëkkee ci koñ bi kër gi ku ko moom ñu ne ah mu ngi Italie ñu ne lii ku ko moom ñu ne mu ngi États-Unis donc ñun foog ñu xoolaat pression bu ñuy teg suñu doom suñu doom yu góor yi waaye tamit de plus en plus ñu doomi jigéen ndaxte depuis quelques mois pour ne pas dire quelques années dafa am phénomène bu bees la migration l'immigration irrégulière a de plus en plus un visage de femme mais pire d'enfant ñu ngi fàttaliku la tragédie le drame de l'enfant de Mbour qui avait choqué tout le monde qui avait ému tout le monde donc mbokk yi ñun ñëpp a commencer par man foog ñu xoolaat suñu bopp de waaw nekk di TikTok di Facebook di photo wu am na yenn photo yoo xam ne am na yenn dundin yoo xam ne mais da ngay ñeneen ñi naan affaire bi nii la boo ko mënul di ko uti donc ñun askanu Sénégal nu mettons de la pression ci askanu Sénégal ci ni ñuy doxalee communion bu jotee wala confirmation wala mariage suñu mbokk chrétiens yi may gu jëkk 10 million nu ñu koy waxatee mooy euh, maanaam fu ñuy daje réception bi réception bi 5 millions robe de la mariée càmbay du ma jël robe bu jar 500000 lii mooy pression bi nga xam ne ñun góor ñun jigéen ñun sénégalais ñu ngi koy teg ci askanu Sénégal te lii bokk na ci lii poussé lii poussé lii pousse suñu ay doom ñu jël gaal gi. ndaxte koo ci dégg mu ne dama bugg a teral sama baay dama bëgg teral sama ndey koo ci dégg mu ne la dama bëgg a yóbbu sama yaay màkk kon foog ñu xoolaat mbokk yi foog ñu xoolaat suñu bopp dama ne la première responsabilité c'est l'État Union européenne ay États-Unis ak ñoom seen politique yi ñuy imposer am nañ ci responsabilité waaye suñu état la ñuy waxal waaye tamit bu caaxaan faaxee ñun itam am nañu si responsabilité du ma may sama doom ku amul xaalis waaw góor yi sax léegi ñu ngi naan du ma takk ko amul liggéey mais c'est une pression économique sociale nga nekk ci benn kër Boubacar dem Espagne man gii saañaa may magam aw ma xëy amul aw ma gont suñu bàyyi suñu yaay ñépp yéegal Boubacar man mii di taaw aw ma tus kenn faalewu ma ci kër gi sama kàddu woyof ni dunk waaw sama rakk bi nga xam ne mage naa ko ñaar fukki at ñu teg ko ci kaw bu dogal di bu dogal di am sax ci kër gi moom lañuy ñuy laaj waaw bu tabaski jotee bu ñëwulee kenn du rendi xar bi voilà les pressions qui sa passent dans nos lii mooy li nga xam ne moo am suñu biir koñ ndaxte nag foog ñu wax ni dëgg président Macky Sall na dem lijjanti suñu doom yi nekk Tenerife na dem lijjanti suñu doom yi nekk euh, Las Palmas ak ñoom seen ay rapatriement taxuñaa jóg ba pare na fi def ay politique yoo xam ne politique yuy suuxat entreprise sénégalaise et pas di jox li ëpp ci marché entreprise étrangère yuy tànk di yóbbu di tànk di yóbbu mu fulal mbay mi te bàyyi politique boo xam ne dañuy aaki moo suufu baykat yi spoliation foncière waaye itam foog ñu waxante dëgg bu fekkee suñu xel ak suñu xol yépp mu ngi ak yéen ñi nekk ci libi ñu def leen ni njaam yéen mi nekk Tenerife yéen mi nekk Las Palmas ak ñoom seen ah foog ñu waxante dëgg itam dëgg la askan buy dee wékku waaye nag nañu toog fii nañu toog fii xeex ba mu saf sàpp ak président Macky Sall dégg naa am na ñoo xam ne ñu ngi naan ñoom ñu xaru ca Tenerife xaru ca Las moo leen gënal ñu rapatrier leen fii Sénégal mais ay waleen ñu ñëw xaru fii Sénégal xaru Sénégal mooy ñu am taxawaay bu mot sëkk ba président Macky Sall dina def lu ñu bugg wala waaw dinañu dégg kenn du ñu changer Sénégal donc ñun itam nañu bàyyi daw daw bi tamit dafa yomb trop nañu xaru suñu biir réew te xaru ñun bu ñuy wax mooy am taxawaay bu mot sëkk monsieur le maire ñu ne ko ana xaalis bi monsieur le ministre ñu ne ko ana xaalis bi président Macky Sall ñu ne ko ana xaalis bi te bàyyi daw Boubacar Seye du Superman Souleymane Aliou jàlloo du Zorro c'est les peuples qui font l'histoire léegi nag ci biir askan wi day am ñoo xam ne waaw dañuy gis fu sori seen liggéey mooy yeete seen liggéey mooy wax attention waaw loolu mooy liggéeyu ñoom Boubacar Seye loolu mooy taxawaayu ñoom Souleymane Aliou Diallo waaye ñoom rek mënuñu dara. donc nañu toog fii am taxawaay bu mën sëkk xeex bëre bëre ànd daan suñu noon ndaxte nag kuy bëree daan bu ñëpp dawee kan mooy soppi Sénégal lii kon euh, laa amoon euh, li may wax di wax ne tey bés bu am solo la euh, Horizon Sans Frontières Otra Africa FRAPP dinañ xool naka la ñuy gën a ñoŋalee suñu ànd ngir intérêt askanu Sénégal yépp rawatina intérêt wu ñi nga xam ne ñooy moodu moodu yi faatu faatu yi ñiy jël gaal gi ak ñi di jël suuf si ndaxte nag doomu États-Unis fu mu nekk ci Sénégal lu ko fa dal nga dégg président de la République bu États-Unis wax ñun bés bu nekk nga dégg rey nañ Sénégalais Brésil rey nañ Sénégalais Italie rey nañ Sénégalais euh, États-Unis rey nañ Sénégalais dëkk bi ne selew maanaam bakkanu sénégalais rawatina bakkanu sénégalais bi nga xam ne sénégalais dara diaspora la tekkiwul dara moonte de xaalis bi waa diaspora di dugal fii kenn xamul nu mu toll dafa doy nag ñu jàppee waa diaspora une vache laitière nag boo xam ne dañuy ratt rek dañuy ratt rek di ratt rek te bu amee jafe-jafe du gis kenn même pour rapatrier ay corps sénégalais yi ñooy cotiser moo tax ñuy dellu di jaajëfal diaspora sénégalaise bi ñoom ñooy cotiser ci daayira yi ñoom ñooy cotisé ci organisation yi ngir rapatrier ay corps consulat amul ambassade amul nekkee wuñ fa lu dul tappale ak i politique politicienne donc dinañ xool naka la ñuy ñoŋalee ànd boobu naka la ñuy ñoŋalee naka la ñuy boolee suñu doole ngir intérêts matériel et moro des sénégalais en général rawatina waa diaspora bi muy gën di jip muy gën di am doole muy gën di visible muy gën di audible jër jërë ngeen jëf. Euh, ñu delloo kàddu gi euh, suñu mbokk euh, Boubacar Seye je crois que am na sànq da doon def juste hors d'œuvre plat de résistance bi la nar indi dina wax ci français et en wolof wala en wolof d'abord puis en français. donc voilà jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñoo mujjee ñëw ñu def seen portable sous vibreur wala silencieux ngeen jàppale ñu xëy na li ci des bëriwul ñu muñalante vibreur wala silencieux euh, tey FRAPP moo dalal à sa demande Horizon sans frontières bi Boubacar Seye euh, jiite mu bëggoon dox tànk jàmm dox tànk mbokk euh, ñëwoon fii Euh, suñu mbokk Souleymane Aliou Diallo jiite Otra Africa yëg ne waa Horizon Sans Frontières dañuy ñëw fii mu ne ñoom itam ñu ne ah waa Horizon Sans Frontières du ñu leen fi jiitu te ñaari organisation yooyu li leen gën a mandargal mooy nekk la voix des sans voix nekk baatu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci biti Sénégal te soxla ndimbal. soxla ñu jàppale leen soxla ñu taxaw leen Boubacar Seye kon moo nar a wax ak yéen après dinañ joxaat kàddu gi euh, suñu mbokk euh, Souleymane euh, Aliou Diallo et bu amee question bu amee ay laaj dinañ ci indi ay tontu. Hmm. Boubacar Seye bisimilah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Guy comme ni nga ko waxee nag tey suñuy tànk ma réitéraat ko du woon lu dul ay tànku cant. Euh, des remerciements euh, jëmale ko ci Guy Marius ak ñi mu àndal euh, pour soutien bi nga xam ni indi nañ ko biñ ma téye prison ma ànd seek Souleymane Aliou Diallo le président de Otra-Africa mu ñëw gunge si ba ma ñëw ma ànd seek sama collaborateur Sana Dabo mais comme tey ni ko Guy waxee nag xam nga Euh, l'actualité oblige euh, ba nga xam ni tey devant vous la presse euh, nous allons faire un survol de l'actualité nationale peut-être même internationale autour euh, d'un sujet boo xam ni damay wax ni aujourd'hui et c'est l'un des éléments essentiels de la géopolitique mondiale autour de l'immigration bis bi le hasard n'existe pas n'existe pas amul Euh, bis bi nekk un jour euh, symbolique d'autant plus que boo dégloo ci presse bi ñu ngi laam-laame euh, des rapatriements en vue parce que tout simplement le ministre espagnol le premier ministre espagnol monsieur Pedro Sánchez dina entamé bu suba une visite au Sénégal moo tax soo xoolee toute la presse en parle l'occasion pour ñun Horizon sans frontières Otra Africa FRAPP Euh, ñu ñu décortiquer euh, revenir aussi sur euh, l'immigration clandestine et ensemble dégager des perspectives de solution parce que Guy wax na fi lu am solo tey nag damay wax ni il est temps que ñun au niveau de l'Afrique ñu xoolaat suñu bopp tuuti hmm, damay wax sax il faudra aujourd'hui mu am cette révolution épistémologique Euh, socioculturel il faut mu am une relecture des perspectives pour que ñu xam ni kat ay doomu Afrique ñooy tabax Afrique tey la migration boo xoolee mu ngi dévoiler euh, des aspects aux conséquences incalculables dans nos société en situation de vulnérabilité chronique gii wax na sànq ni boo demee îles Canaries Tenerife. Forteventura. waaw euh, plus de vingt trois mille. Mhm. donc du premier janvier. Mhm. au quinze novembre. pratiquement plus de vingt trois mille. Mhm. africains ñu ngi foofu îles Canaries li ci ëpp nag. c'est des sénégalais soo xoolee ren euh, dafa dem ba nuru une course de pirogue vers les îles Canaries. Euh, ñi dee ci géej gi ñi rëcc ba dugg euh, ñi dee en deux mille vingt on parle de plus de euh, deux mille trois cent approximativement soixante dix mais dama wax ni en termes de valeur absolue on ne peut pas quantifier le nombre de personnes yu dee c'est des hmm. approximations loolu moom dama bëgg mu leer kon vous conviendrez avec moi que benn doomu aadama rek bu ci pet paquem problème la waxtuma la ak on parle de plus de 2000 ci 2020 bi entre 2014 et 2017 il y a eu plus de 20 000 15 300 morts 15 326 exactement morts dont les 71 pour cent en Méditerranée centrale Méditerranée centrale c'est l'axe euh, Tripoli Lampedusa euh, li ci at boobu ñetti at yooyu moo ëpp li en vingt ans entre 1998 et 2009 il y a eu plus de 15 000 morts en moyenne il y avait par année li ci ñetti at yooyu moo ëpp li en vingt ans donc vous voyez les problématiques que pose l'immigration clandestine aujourd'hui qui endeuille tout le peuple continent tout le tout le tout le tout le peuple africain nga xam ni euh, damay wax ni sax euh, migration pathologie la fi au Sénégal boo defee un survol des théories de la migration da gis ni lépp dafa feeñ au Sénégal théorie yëpp moo tax en parlant de responsabilité je suis d'accord la responsabilité les responsabilités son collectives muy État muy les familles avec la NEM la nouvelle économie des migrations internationales la causalité cumulative la les, les théories macroéconomiques les théories des institutions ba ci ñun immigré loolu yëpp fenn moo tax immigration nekk une pathologie dans notre pays maintenant au-delà de ces causes économiques parce que euh, ñaari euh, type immigration moo am la migration pour des raisons économiques et la migration pour des raisons la migration forcée celle dont le mobile de déplacement est dû à des persécutions systématiques et des guerres dégradation de l'environnement etc etc ñun bokkuñu guñ ci loolu mais suñ dafa nag fa lañ jëm vu les enjeux nañ ci dellu si waat mais ici pour le moment la cause est économique li ko indi mooy ndóol le chômage endémique structurel des jeunes les tares de la mauvaise gouvernance qui qui, qui obstruent les perspectives d'épanouissement des couches les plus vulnérables la pauvreté clonique la forte paupérisation l'extrême povreté yooyu moo fi nekk tey gis nga le taux de chômage gis nga le taux de pauvreté ci biir Sénégal fii kenn xamul nu la toll chiffre bu ñu la wax rek ëpp na ko avec le Covid gis nga tey y forte paupérisation nit ñi sonn nañu euh, la nouvelle donne wax na ko sànq les accords de pêche c'est l'arrivée de ces pêcheurs ñu augmenter tey ces flux-là parce que tout simplement la pêche euh, la zone économique exclusive a été bradée tey la pêche industrielle écrasée la pêche artisanale au point que pêcheurs yi nga xam ni xamuñu lu dul napp mënatuñ cee dund ñu takk seen seeni gaal jubali Espagne ba loolu tey jur le premier ministre espagnol ministre am des affaires étrangères moo fi ñëwoon ñu toog tey premier ministre bi di fi ñëw donc il y a problème am na jàngat bu ñu ci def kii dina ci dellu si waat léegi euh, loolu yëpp mu war ñu interpeller ñuy dee ci géej gi ce ne sont pas des chinois c'est des africains Euh, comme ni ko gi waxee est-ce que ñun war nañoo mën a noppi xale yi di dee parce que amatuñu espoir parce que parce que aujourd'hui il y a plus d'espoir aujourd'hui euh, xale yi gëmatuñ ne mënatuñ fi tekki le doute a tellement perforé notre environnement socioculturel au point que gëmatuñ ne mën nañu fi tekk y a problème nit ñi gëmatuñ loolu y a plus d'espoir il faut redonner l'espoir loolu moo tax ñu ne Barça ou Barsaq fii Barsaq la il faut partir même s'il faut rentrer même mort il faut rentrer moo gën di rester vivant dans l'enfer africain il y a un problème su ñu demee ba doomu Afrique gi gëmatuñ ne mën nañu fi tekk il y problème foofu lañu toll tey ci réew mi loolu moo tax boo xoolee bi ñu ñëwee ngay sax ci lañ ma téye ma ni xale yaa ngi dee alors euh, est-ce que war nañoo mën a noppi te nee nañ xaalis a ngi dugg ci dëkk bi. te xaalis boobu li ko tax a jóg mooy lutter contre l' extrême pauvreté facteur de propension à l' immigration clandestine lu ko tax a jóg mooy le chômage régler les problèmes d' insertion socio-économique de ces jeunes la mais tey la wàllu gën ay ñun ñu ne kon de il faut que ñu xoolaat les axes et orientations stratégiques de l'aide au développement ñun d' accord ñu loolu parce que cette aide n'a jamais profité aux ayants droit te il a parlé tout à l'heure de l'hypocrisie naa ci dellusiwaat li tax loolu am kon nañu xoolaat loolu ba nga xam ni xaalis boobu ñu doon dugal fii ci dëkk bi kat te xale yaa ngi gën a dee kon xaalis boobu fu mu dugg loolu rek laa wax ma wàcc aéroport rek ñu téye ma bugguma toroxal ba budul woon ñi ñi presse bi ak ñi ak ñeneen ñu si xeex xëy na kon maa ci biir ba léegi nous allons en profiter pour interpeller l'opinion nationale internationale yooyu dafa war a dakk Sénégal il faut qu'on revoie cette maa ngi ci bind benn bataaxal démb bu ma tuddee euh, justice pour la justice ça doit être notre à tous pour lutter contre la paix et la démocratie au Sénégal euh, tey l'actualité nous donne raison les cendres des tensions sociales qui ont secoué ce pays sont visibles encore lan la ñu waxoon lii lañ doon bañ que cette jeunesse là nga xam ni bombe sociale la su bis bu exploité du baax bis bu explosé du baax lii rek lañ ci doon bañ dem nañ ba nga xam ni alors fekk si nañ si parce que njiitu réew mi taxaw na laaj euh, euh, euh, un mémorandum man deux cent dix huit milliards loolu laa jot loolu la ma union européenne jox du ma inventé du yokk jox naa ko les enquêteurs mais ñoom ñu taxaw wax plus te loolu c'est au cours de ces dernières années fi dugal de 2000 à là vous vous les sandwichs la ak yu ñu joxoon depuis 2005 xaalis yooyu bu ñu ko xaymaa Sénégal kenn xamul ñaata xaalis boobu fu mu dugg mais là l'actualité nous donne raison gis nga actuellement addina bi yëpp ils sont braqués par le Sénégal tey je reçois des journalistes néerlandais ginnaaw suba c'est des c'est des espagnols après demain c'est des italiens nit ñi la jaaxle lan moo xew Afrique lan moo xew Sénégal ba xale yi mu jaral leen nit ñi dee loolu moo tax ñun mënatuñoo noppi loolu moo waral lii tey au-delà dama ñëw sant leen mais mënuñu woon tëb cette problématique là ñu ko diagnostiqué euh, duñ fa rek yem comme ni mu ko waxee li tax loolu tamit il faut que ñu xoolaat suñu bopp nous allons vers les causes socioculturelles au-delà des causes économiques aussi nous avons les choses choses socioculturelles parce que euh, euh, nous avons parlé tout à l'heure de responsabilité collective nous sommes tous responsables mais aussi il faut que ñu xoolaat suñu bopp parce que aussi euh, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pesanteurs socioculturels. La notion de tekki la notion de am-am il faut que ñu xoolaat ko aussi dem nañ ba nga xam ni nous sommes euh, gii wax na ko léegi euh, et ça c'est c'est c'est c'est synonyme de ça crée beaucoup de d'exclusion et de tension au sein des familles tey ku amul boolewul na ci dara nous sommes dans un dans une boo xam ne dañu jël am-am. l'avoir ñu teg ko au-delà de l'être qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques lu mu am ngay dégg ban oto di dawal ban téléphone loolu rek ngay dégg mais dans un tel pays mais nous allons vers l'aliénation parce que loolu la ñu jiital la notion de tekki xale yi dem nañ ba nga xam ni yaakaar yaakaaratuñ ne mën nañoo tekk fii ci biir Afrique c'est extrêmement grave mënatuñ tekk fii ci biir Sénégal c'est extrêmement dangereux il faut que ñu xoolaat suñu bopp mais là aussi euh, les responsabilités on peut les situer le système éducatif parce que boo xoolee on ne parle que de guerre de grève nan la ñuy arrêter grève bi au-delà de ça le problème est plus profond quel est le contenu de notre système éducatif qu'il faut revoir nous avons un système éducatif très mal orienté qui crée des odyssées migratoires périlleuses il faut que ñu xoolaat loolu xoolal série yi di jàll ci dëkk bi ban série mooy refléter notre socio-économique socio-culturel amul socio-culturel waa ñu wax na ko sànq mariage yi léegi xoolal ay may gu njëkk ay ñaata millions les esprits les plus vulnérables ñu mel ni man foog nañu soo amul loolu doo am jabar mais xoolal li jigéen ñi yi ñuy takk ak yi ñuy laaj yooyu yëpp tamit je crois que il faut que ñu xoolaat suñu bopp il faudrait cette révolution socio-culturelle épistémologique pour ñu xam ñooy kan soo xamul ñooy kan doo gëm sa bopp Donc, quelque part, nous avons une grande part de responsabilité. Il faut que nit ñi seen nous ci soit parce que la notion de am am euh gis nga àddina processus la euh dara teubul soti mais gis nga la relation linéaire entre qu'il y avait entre am am liggéey ak am am a été défroquée ba nga xam ni euh, nit ki dafa foog ni day xëy rek am lépp tey xale yi loolu lañ leen bëgg a gëmloo loolu lu ñu gëm léegi y a plus de repères moo dans les perspectives dañ ci dugaat il faudrait déconstruire pour reconstruire les mentalités et les identités restaurer les valeurs parce que nit ñi dañu yàkkamti te les processus la yooyu yëpp il faut que ñu xoolaat ko mais li koy indi nag mooy qu'on remette tout le monde dans une dynamique de travail il a parlé de l'Espagne et de l'Italie dinañ ci dellu si parce que ces pays il y cinquante ans dañu nekkoon des terres d'immigration ñoom dañu doon tukki tey c'est des terres d'immigration donc le rattrapage économique est possible mais à condition que ñu met ñu liggéey loo nit ñi mais c'est cette volonté politique là moo des ba nga xam ni on oriente vers les gens vers l'obscurantisme et l'asservissement ñu bëgg a gëmloo nit ñi ñun pour ñu gën ci il faut l'aide au développement qui n'a jamais servi aux gens droit gis nga la banque mondiale le Fonds monétaire international ñooñu mosuñoo développé réew réew ay doomu réewam ñoo koy yore ñoo koy tabax kenn ñu tabaxal Sénégal moo tax nag suñu demee ba ñëpp bëgg a màbb foog ni dañoo war a dem Espagne foofu la erreur bi nekk loolu moo tax ñun ñu jóg ni déedéet moo tax liggéey wax bari na li ñu war a mën a liggéey parce que li ñu boole moo bëri pour kat delloo si waat ma les mentalité pour que ñu tabaxaat parce que les enjeux sont majeurs ba pare nu sommes à l'ère l'ère gis nga ce coronavirus laa ça risque de marquer toute la décennie 2020-2030 parce que les enjeux sont géopolitiques gisoo ah, pour feebar rek am na cinq vaccins yu génn ko vous avez vu tey tey ñii wax lii bu subaa ñu lay wax la parce que enjeux yi ñoo bëri moo tax il faut que Afrique wanewaat boppam ñu xoolaat qu'on harmonise les positions que ñu xoolaat suñu bopp mais kenn wóolu sa morom l' Afrique on se complète bu subaa ñu complété kii jàpp ko ginnaaw suba ñu complété ma jàpp ginnaawaat suba comme ni mu ko waxee moom moo ci doon def vous vous rendez compte au moment qu' est ce que nous nous koy indil ay dugal dans le de, de la médecine traditionnelle vous verrez des gens yoo xam ne li ñu ciy wax yàlla lépp lu mu mënti indi comme feebar ja solution baa ngi fii mais ñun wóoluwuñ suñu bopp. bëgguñu suñu bopp wóoluwuñ suñu bopp gëmuñu suñu bopp moo ñu indi li ñuy jar nii je crois que nag euh, suñu gisee ñu mel nii ak ñii il est temps que ñu xam ni nag les défis sont en Afrique il faut que ñu avancer la réflexion sur ma sax Sénégal Afrique post coronavirus dëkk bu mel ni Sénégal nag dafa am une particularité c'est une porte d'entrée zone d'influence la boo jëlee les migrations internationales, 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique. Le Sénégal attire par sa stabilité. dans le domaine de l'enseignement supérieur, il y a un domaine, vous avez des étudiants gabonais, marocains, ñu dugg dans une nouvelle ère géopolitique, géostratégique avec la découverte des hydrocarbures. Il y aura un dumping migratoire. Nous sommes venus, nous sommes venus. C'est ce qui nous attention. boo dégloo fan yële ñu ngi naan des forces occultes xam nga Sénégal su déstabilisé c'est c'est toute la sous-région qui se déstabilise mais je voudrais rappeler que zone bi ñu nekk air bi ñu nekk moo grave parce que euh, l'Occident a un modèle économique voir boo xoolee ñoo ëpp li ñuy consommer ci énergie l'Amérique du Nord dina consommer plus de euh, vingt et pour cent l'Europe 16 pour cent Afrique 3 pour cent moo tax gisoo tey ñu am courant bu subaa du ñu am courant boo demee au Nigéria en 2005 le Nigéria moo nekkoon troisième producteur mondial premier en Afrique daanañu ngàcc par jour 2,4 millions de barils loolu indi indiloon na le gouvernement central plus de 37 mille milliards de de dollars tey 60 pour cent ñu ngi ci suuf pauvreté. ay Boko Haram ak yooyu yëpp fu mu jóge ci yooyu lu jóge moo tax tey pour dellusiwaat sur la jeunesse il faut ñu teg des mécanismes d'insertion il faut que l'Afrique jël en charge sa jeunesse bu ñu xaar Espagne di leen ko jëlal l'Europe ne va pas prendre la jeunesse africaine c'est c'est c'est aux Africains de prendre leur responsabilité c'est la raison pour laquelle nous appelons à la responsabilité au sens de l'honneur et de la dignité humaine parce que li am gàcc la xale yi ci ay avion lañ leen di jël moo tax dinañ ci dell soit sur le rapatriement parce que euh, nous nous sommes foncièrement contre tout ce qui est violation des droits humains wax naa ko sànq ci benn rajo euh, c'est pas ce qu'on attendait de de de de Pedro Sanchez parce que ñu ngi laam-laamee c'est des rapatriements euh, duñ ci d'accord c'est notre position de principe et je crois que c'est la c'est aussi la position de principe amul sax je crois ça c'est clair duñ ko mës a mais tey jii nii euh, tey ci nii euh, malheureusement euh, ñu ngi ñuy dégg l'Europe a été formelle wax naa ko il y a un an c'est le conseil européen qui s'est réuni képp koo xam ni yaa ngi Europe amoo këy dinañ la delloosi dinañ la delloosi boo xoolee ñu ngi lam-laame y a des signatures de rap boo demee Allemagne ñu ngi rapatrier waa Allemagne ñu ngi may dégg ñu ngi identifier di rapatrier ay sénégalais seulement euh, euh, bi ñu ko njëkkee def dañoo taxaw on fait par compte-gouttes ginnaaw suba ñu dugal 10 dugal leen ci benn avion malheureusement nit ki soo ko rapatrier day wax sutura day bañ du nangoo sax wax Espagne mu ngi koy def voilà alors loolu ñun la ñu wax ni d'accorduñu ko parce que rapatriement pour mu am il faut accord am te fu accord amee am na compensation financière parce que dañuy bañ li amoon 2005 ñi ñu rapatrié woon yëpp ñu jëlaat gaal gi dem moo tax ñuy dugal xaalis bi ñuy dugal ci réew mi loolu moo tax ñëpp di laaj tey xaalis boobu fu mu dugg yooyu lañuy ñuy bañ yooyu yooyu yooyu noonu la bañ ba tax na rapatriement yooyu ñuy wax euh, malheureusement dina am et nous nous le condamnons avec la plus grande fermeté ñun nag ce qu'on de Pedro Sanchez euh, c'est de faire avancer la réflexion euh, sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé parce que tey dafa am lu am importance lu génn sànq fii bi di di wax euh, il y a ce qu'on appelle une mondialisation des flux migratoires toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ le transit et l'accueil de ces migrants au profil de plus en plus diversifié am na am na borom xam-xam am na jigéen il a parlé tout à l'heure des femmes je rappelle qu'il y a une féminisation des flux migratoires les femmes occupent plus de 48 virgule 8 pour cent 46 virgule 40 48 virgule 6 pour des migrations internationales et amuñu aucune protection insuffisante suffisante du moins en droit en, en matière de droit international il y a un vide juridique c'est l'occasion aujourd'hui de demander un statut juridique particulier de la femme parce que ñu ngi koy violer ñu ngi torturer ñu ngi koy sax condamner à mort le cas Mbaye Diop ak ñeneen ak ñeneen dans certains pays d'accueil donc aujourd'hui il a ce, il y a cette problématique là il y a les enfants couches vulnérables qui n'ont aucune protection yooyu yëpp tey ñu ngi ci biir et il a été même démontré que ce ne sont plus les plus pauvres qui migrent tey malheureusement le de gestion de ce est exclusivement réservé à l'Europe qui dit que c'est loin. L'Europe qui se barricade, qui met ses frontières juridiques, politiques et physiques. Les frontières européennes, aujourd'hui, sont malheureusement devenues des cimetières, hein? euh, des, des, des, des lieux de torture et de souffrance, au lieu d'être des lieux de communication et de partage. Ça, c'est l'esprit Schengen. C'est ce que nous avons fait, l'esprit Schengen. Nous avons violé les principes de l'esprit Schengen tey l'Europe cherche à externaliser les flux migratoires signé ay signé ay signé ay kii Sénégal am na ay temps mu naan xaw ma dafa bëgg a nekk gendarme de l'Europe Sénégal jegewul sax Méditerranée bay nekk gendarme de l'Europe donc yooyu yëpp mu nekk ay erreur l'immigration comme soupape de sûreté pour résoudre les morosités économiques moo tax ces ces accords là moo tax d'accord ñu ni monnaie la dignité de ces migrants parce que dañu soxla xaalis déedéet ñooñu lañ leen fa bàyyi loolu moo tax ñu ne ñun li ñu doon xaar ci Pedro Sanchez parce que yàlla dafa une particularité dans ce que nous faisons Horizon sans frontières ak Otra Africa bi c' est des organisations ne en Espagne mais ñun boole wuñu ci ñu ci boole wax na ko sànq tey mënuñu fi ñëw di wax lii te consulté wuñu ñun li ñu doon xaar tey euh, c' est des réformes du droit d' asile aujourd'hui l'immigration est un facteur d'équilibre social économique c'est un facteur de recomposition de de des des des sphères d'influence ñun loolu la ñu doon xaar tey mais malheureusement nous avons une Europe qui glisse vers l'extrême droite nous nous sommes très dessus moi je suis extrêmement dessus parce que quel que soit li fi Pedro Sanchez di wit si loolu ci la bokk mais dañoo jóg keroog bi ñuy voté dañoo daw pour voter la gauche pour bañ l'extrême droite parce que ñu ngi doon gagner toute l'Europe ñu xeex bind pour que ñu voteel Pedro Sanchez kon tey du ñu d'accord benn yoon ñuy toroxal loolu tey malheureusement ces dirigeants européens ont échoué dans leur idéologie classique ils surfent sur l'islam et la migration mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique aujourd'hui la migration est devenue le contraire de l'identité on a voulu tout simplement construire la migration comme cela c'est une marchandise électorale pour gagner des élections la migration nekkatul malheureusement un complément qui entraîne une dilatation de l'économie et de la société tey nag loolu mooy ñun suñu xeex ba nga xam ni tey il faut que ñu ñu xeex contre ces <coughs> ces espaces ces replis ces espaces de repli identitaire parce que nous sommes dans un monde mondialisé et les identitaristes n'ont rien à vendre dans ce monde mondialisé là c'est le culte de la diversité ñun loolu lañ doon xeex ci Pedro Sanchez loolu lañ doon yaakaar ci moom mais pas des projet de rapatriement en vue Sénégal tey dafa waroon jël le leadership hein pour une meilleure gestion de ce flux migratoire là mais mais muy signé loolu duñ ko d'accord duñ ko mus a d'accord nag mais mais rapatriement moom jàppal ni fu mu am am na signature te rapatriement fu mu am am na compensation financière wax nañ ko waxaat nañ ko du ñu d'accord nag benn yoon la migration comme soupape de sûreté pour les l'hémorragie économiques nañu bàyyi di di monnaie la dignité des des immigrants sénégalais tey jii les sénégal de l'extérieur mérité nañu leneen lu dul ñu leen toroxal parce que ñoo xam ni nag lu ñu mënti am Sénégal lay fanaan si seen banque mooy Sénégal sa titre mooy Sénégal def naa fa lii tabaski gis nga tabaski daan dana jox sax ñun ñu yónnee xaalis te duñ tabaski mais dañuy féex parce que waa Sénégal tabaski nañu donc voilà tey il faut faire de cette diaspora une composante organique jàppale leen Euh, de leur intégration structurelle fexe ba ñooñu am këyit Pedro Sanchez war na mën a comprendre loolu il faut revoir euh, euh, il faut revoir les réformes de droit d'asile arrêter les expulsions lutter contre le paradoxe libéral moom mooy tout ce qui est bon économiquement est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires donc la mobilité est saine pour des raisons sécuritaires loolu la ñu war a xeex loolu tey ñun mooy suñu combat dinañ ci ànd waa FRAPP ci la ñu nekk ñi ak ñeneen ak ñeneen euh, pour que tey ñu xoolaat la gestion de ces flux migratoires là qui malheureusement constitue l'un des plus grands défis auxquels les États sont confrontés à ce nouveau millénaire nous avons même parlé du droit à l'immigration qui n'existe pas et qui devrait être le corollaire logique du droit à l'émigration que stipule l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce que tey il y la l'article 13 dañ ko def pour la création de l'État d'Israël disparu 70 ans après Jésus-Christ moo tax gisoo ñu ngi def la signature le 10 mai euh, Israël 14 14 euh, le 10 décembre 14 mai gisoo bateau boobu Bob Marley doon woy naan Exodus y avait ñaata kii ci biir ñu bëgg leen yóbbu Allemagne ñu arraisonné ce bateau là dans le port d'Haïfa en foofu la mbir bi jógee parce que dañu buggoon ñoo ñu dem moo tax foo la moo diaspora jógee c'est la dispersion du peuple juif du peuple juif disparu euh, c'est la dispersion du peuple juif, juif dispar euh, euh xaw ma lan euh, en Palestine donc foofu la loolu jóge y une précipitation aujourd'hui il faut des lois beaucoup plus universelles parce que en en en en 1948 bi ñu def la déclaration universelle des droits de l'homme les les Nations Unies comptaient 56 États Sénégal bokkuloon Espagne bokkuloon ñeneen bokkuloon aujourd'hui les Nations Unies comptent plus de 190 États donc il faut que ñu xoolaat il faut que ñu reconstruire contexte bi ñu nekk la c'est la mobilité croissante des populations loolu moo ñun suñu xeex loolu loolu moo ñu indi ñu ne kat c'est vrai l'immigration irrégulière bi nañ ko xoolaat. ba nit ñi mën a tukki ci anam bu normal parce que ñoom dañuy dugg fii nu leen neexee di def lu leen neex nit ñi mën ñoo dem loolu du normal et je crois que tey la meilleure c'est-à-dire que mu gën a baax pour tey nit ki mooy bàyyi ko muy dem ak ñëw vous verrez que les gens de façon naturelle vont rester sa eux mais luttons contre l'extrême pauvreté bi nga xam ni tey moo ñu sonnal faisons en sorte que ñu xoolaat les APE il faut revoir tout cela ñun d'accord ci même chose que ñoom ni ñu ko gisee euh, beneen bi euh, redynamiser certains secteurs l'agriculture parce que am na ñu lépp war na mën nekk des activités de relance war nañu mën a aussi xoolaat euh, yenn filières yi sur l'employabilité des jeunes war nañu mën a aussi fexe ba tey jii nii le secteur informel ñu redynamiser ko parce que Euh, loolu moo ñu dal dans la lutte contre le coronavirus on n'a pas voulu tropicaliser on a copié gis nga les résultat donc nañu fexe ba ce secteur là soit redéterminé nañu fexe ba l'économie repose entre les mains des nationaux mais su ko ñeneen ñi jëlee dañuy jël li fi nekk dem donc bref c'est un sujet très vaste xam naa ni gi damay delloowaat s'il y a des question ñu dellu si waat si. jërëjëf euh, parce que du jeex c'est un c'est un chantier. voilà. jërëjëf Boubacar Seye. <laughs> Uh-huh. il va accorder des interviews ñi nga xam ne bëgg nañ ko. Euh, bon je serai pas je serai mm-hmm. on va bientôt terminer. ñi nga xam ne dañoo bëgg ay version française wala version wolof avec Boubacar Seye wala avec Souleymane euh, Aliou euh, Diallo vous pouvez l'avoir dans quelques secondes. bon moi je serai pas long comme Boubacar. mais il se trouve que nous sommes dans un contexte euh, diplomatique très intense et que y a eu des passés ici. Récemment, le ministre des Affaires étrangères espagnol était là en discussion avec l'État du Sénégal et à la fin, il y a un quiproquo par rapport à la communication finale. Elle était venue pour discuter de l'immigration, elle est repartie, d'autres disent on n'a pas discuté de l'immigration. Mais cette fois-ci, voilà ce que nous nous tenons à dire. Malheureusement, nous parlons un peu Et Pedro Sanchez sera là dans 48 heures. Nous voudrions nous adresser al señor Pedro Sánchez. Bienvenido en Senegal. Lo que pasó, estamos esperando a la final de este viaje que hay una declaración firme, clara, que no hay quiproquo a lo que se pasa con el gobierno de Senegal. Que es la cosa que se habla entre diplomático, que nosotros, gente africano, senegalés, inmigrantes, sabemos lo que se ha firmado para que la aplicación nos toque a nosotros directamente. Queremos la cosa limpio, claro, bien dicho. En principio somos contra la repatriación masiva de los inmigrantes ahora en esencia en las, Islas Canarias. No somos de de repatriación masiva, de la deportación. La Asociación Otra es sevillano, de Andalucía, de España. Soy inmigrante. Ahora soy lo que es la bonita de la inmigración. Si yo no he patera, he podido viajar por aviones. Los chicos que han llegado allí con patera necesitan ofrecer esas suertes que yo he tenido de hablar hoy castellano. Es muy importante que mis preguntas directas Yo sé que ese viaje es de alto nivel diplomático. Los senegaleses que viven en España han participado a la reflexión, han hecho contribución en esos viajes diplomáticos políticos. Es una pregunta. Los españoles de origen senegalés, que de verdad pueden contribuir a la reflexión puede ofrecer solución a esa inmigración. Han podido participar a esos viajes y aquel nivel. Yo que aquí hay mucho español de origen senegalés se lamenta de la relation que tienes con la cuerpo diplomático y consular, y aquí. Algunos españoles de nacionalidad senegalés tienen muchísimas dificultades acceso aquí en el consulado. Yo lo digo yo. si necesito de aclararlo, soy disponible a dar prueba que no tenemos acceso fácil en la consulado español de Dakar. Hay, hay español de nacionalidad español de origen que quiere entrar aquí en el consulado y no tener las facilidades. Aprovechemos de su viaje para denunciar eso. No es normal. Estamos hablando, no sé, se puede ser, es la razón de su viaje de repatriación, pero es ya necesario de repatriar tantos. Es la solution Es una pregunta. Je le dis en wolof et je le dis en français. Récemment, njiitu diplomatique u Espagne ñëw na fi mooy ministère des affaires étrangères Espagne ñëw na fi ñu wax ñu ne dafa ñëwoon pour signer wàllum delloosi wàllum sécurité sociale walla walla bi mu demee li ñu dégg ci ginnaaw daf ñu leeru pour bu ñu layam-layam parce que boo waxul lu la wóorul da ngay tooñ dañu dégg mu wax ci espagnol li ko indi ñaari fan ci ñi toogal nguuru Sénégal ne moom li mu wax ñoom déggewuñ ko noonu bii pa damay interpeller Pedro Sanchez ak Macky Sall ci seen conférence de presse si seen contact si seen déclaration finale ndegem njiitu réew bu ñëw la suy génn dina wax nañ ñu wax lu leer nañu lu mel ni midi lu mel ni jant bi lan moo fi indi woon Pedro Sanchez ak lan la fi bàyyi ak lan la ñu waxante xanaa nag loolu leer na ñëw nañu tëju nañu waxtaan nañu déggoo nañu balaa nit ki di dem ngeen wax ñu lan moo ko indi woon lan la fi wax lan la fi bàyyi ak ni mu demee loolu laa wax ci espagnol nañu ñu ko leeral fii am na fi est ñun mi nga xam ne. ñenn ñi ay doomu Sénégal lañu am nañu kayitu Espagne daanaka léegi ay espagnol lañu sénégalais yi nekk Espagne est-ce voyage bi est-ce laaj nañ leen ci seen xalaat est boole nañ leen ci voyage bi ba nga xam ne ñoom mën nañu indi benn contribution ci problème bi am actuellement puisque am na ay doomu Sénégal yu nekk actuellement ci îles yi Las Palmas Tenerife Fuerteventura ñu ngi torox ñu ngi tumuranke sénégalais yi nekk foofu ñoo leen di jàppale est-ce laajte est laajte nañu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci institution yi comme ci gouvernement bi am na ñoo xam ne xam nañu Espagne am na ñoo xam ne ñu ngi toog Espagne est boole nañu leen pour ñu indi seen xel ñu indi seen xalaat indi seen waxtaan ci voyage Pedro Sánchez bi nañ ñu ko leeral en tout cas man daal xam naa ni yàgg naa wax ci immigration yàgg naa liggéey ci duma espagnol ak duma kii waaye xam naa li xew Espagne ci immigration xam naa si lu toll ni midi fii amul kenn ku ci mën a wax lu jëm immigration Espagne te mën nga ma jéggi waaye nag xaw ma dara lu fi indi Pedro Sanchez ay dégg-dégg rek lañ ci am xam naa nag am na doomu sénégalais bu xarañ bu tudd Luc André Diouf bu xam wàllu immigration mu ngi nekk ci wotam foofu Luc André jouf député la mu ngi Espagne xam bu baax wàllum immigration doo jo doomu Joal Fadiouth la espagnol la tey parlementaire la député la ese boole nañ ko ci waxtaan yi dama ni li Boubacar Seye wax ci migration defe naa cour magistral la position Guy Marius ñun xam nañ ko ñun autre africa dañ koy wax te layam layamewu ko gis ngeen man gis ngeen Tunkara u nekk États-Unis xam nga États-Unis la nekk man Espagne laa wax amul benn doomu Sénégal muy ci Assane Diouf muy kenn nanguwuma benn doomu sénégalais bu nekk bitim réew bu ñuy takk pour delloo ko toroxal mënul weesu loolu gàcce munul weesu loolu képp kuy njiitu réew ku am fulla ak fayda loolu war nga ko daw ndegam yow sa kaw yow la dal wutal yeneen pexe wutal yeneen kii mais delloo si doomu sénégalais ñu koy takk di ko delloo forcé ko pour dellu ko gàcce saaga lu ñaaw weesu loolu ñun dañ koy dàq bi ma génnee bitim réew ba léegi aw ma étage aw ma oto aw ma dara si wàllum migration rek wàllum ñu bañ a delloo doomu aadama neewam nag doomu sénégalais wàllum ñuy delloo doomu aadama laay xeex kon munuma nangu duma ko nangu duma ko dégg duma ko gis samay bët du si teg samay nopp du si kii fu ñuy delloowee doomu Sénégal yàlla def na ni ñooñu jël nañu gaal yàlla may na leen bakken ba ñu yegg foofu ñu ngi jaale mbokk ñi nga xam ne seen doom des nañu yegguñu ginnaaw yàlla may na leen wërsëg ba ñu yegg foofu nañu na ñu wut solution yi à partir de foofu ma ne Europe soxla na soxla na ay doomu aadama nañu xool nan lañ leen di intégré delloo bi ñoo bañ am na nag lu xew ñu ngi siy bàyyi xel ñu ngi siy def jàngat waxoon nañ fi avion dina fi delloo trois cent et quelques gisuguñu avion bi mais xam nañu lu xew bi crise bi jotee am na ñu dem Las am na ñu dem pour waxtaan ak ñoom nee leen bu leen delloo si xale yi parce que scandale lay nekk par rapport ak crise bi am actuellement Sénégal rafetlu nañu loolu mais loolu c'est temporaire nañu wut solution bu définitive solution bu définitive bi mooy xale yi nañu xool nañ leen di intégrer foofu syriens yi gis ngeen syriens yi palestiniens yeneen réfugiés yooyu Allemagne da leen wutal solution delloowuñ ci kenn sénégalais yi nañu xool dama ne je profit de cette antenne ñu xool nan la ñu wutee solution pour xale yi nañu des foofu Boubacar lu mu def cour magistrale dafa dénoncé man je suis ferme là-dessus je demande au président Pedro Sanchez de ne rapatrier les jeunes sénégalais jërë ngeen jëf. mooy ñun li ñu wax mooy 23000 migrants africains dans les îles Canaries donc 40 pour cent de subsahariens donc une majorité de sénégalais dafa doy. li ñu wax mooy nañu bàyyi kumba am ndey ak kumba amul ndey bi. bi Diary Sow reer réeree France état bi yépp la ñu mobiliser pour jaari Sow feeñ Serigne mbay Thiam nekk ministre de la République nekkul sax ministre des affaires étrangères amul lu mu deful pour jaari Sow feeñ li ñuy wax président Macky Sall mooy na mobiliser état du Sénégal ngir doomu Sénégal yi nga xam ne tudd ñu jaari Sow te ñu nekk Tenerife te ñu nekk dans les îles du Canari te ñu nekk Las Palmas ak ñoom seen ñu taxaw leen Sidiki Kaba fii la amoon jarbaat boo xam ne gaal bi dafa suux fii ci géej gi xaw ma île des serpents île serpent lañ doon dem toute la république dem wàcc ci tefesu Soumbédioune ndax jarbaatu Sidiki Kaba état du Sénégal na mobiliser les moyens de l'état du Sénégal pour taxawu moodu moodu faatu faatu sénégalais yi pour taxawu suñuy doom yi nga xam ne ñoo nekk Libye suñuy doom ñoo xam ne ñu ngi Tenerife ñu ngi Las Palmas ak feneen fii la am benn responsable APR ci Tambacounda yàlla na ko yàlla yërëm doomam mu dee la République s'est mobilisée président de la République Macky Sall na mobiliser la République pour suñuy doom yu nekk Las Palmas Tenerife te nag d'accorduñu ak rapatriement dañ koy wax président Macky Sall dañ koy wax Pedro Sanchez dañ koy wax état Union européenne dégg naa amoon na benn premier ministre France bu doon wax ne la France ne peut pas toute la misère du monde li ñuy wax Espagne France ak Union européenne mooy ils n'ont qu'à assumer leur part de misère qu'ils créent en Afrique qu'ils créent au Sénégal ndaxte bu duloon misère boobu ñoom duñ fi jógee donc nañu jël wàll. seen wàll ci ndóol bi ñuy créer fii nga xam ne moom mooy ci Sénégal euh, yaa ngi di fàttaliku ba tey sax d'ailleurs da ngeen gis ay mexicains yu bëri yuy dem États-Unis ndax lan benn accord bi ñu woowee ALENA ñu forcé ko mexicains yi mu jur ndóol mexicains yi ku nekk bëgg a dem États-Unis c'est la même chose moom Afrique Union européenne di forcer suñu ay réew ay accord ni mexicains yeeg di dawee États-Unis ndax ndóol noonu la africain yi di dawee Union européenne ndax ndóol ndaxte seeni am-am seeni richesse dafay jóge Afrique di dem Union européenne donc yoon la ñu topp am-am bi richesse bi nga xam ne moom la ñuy tonni seen continent yoon la ñu topp richesse yooyu nga xam ne Union européenne moo ko manque 2012 ba 2018 li fi am mooy. Sénégal amul création nette d'emploi lan mooy création nette d'emploi mooy emploi yu ñu ñàkk ak emploi yu ñuy créer daanaka maanaam benn la 2012 ba 2018 Sénégal amul création net d'emploi tant que ñu ngi ci genre situation yuy Sénégal dinañ continuer di compter suñuy néew mer Méditerranée euh, océan Atlantique ak désert du Sahara li fi am Sénégal mooy li yi di woowee jobless growth mooy croissance sans emploi croissance croissance croissance ñu ñuy bëgg a rey ak croissance mais croissance bi ñu am Sénégal bi ñu am Afrique en général ay croissance sans emploi la et donc président Macky Sall bu rapatrié wee doomu Sénégal gën saa néew mais bu mu leen sarax ay 40 000 ay 20 000. bi mu leen doon indi da diggoon ay projet ay weer a ngi ñi nga xam ne ñëw fi njëkk ñëw gisuñu projet gisuñu kenn ku leen taxaw ñi ci ëpp dañoo wàcc aéroport dañoo egsi Rosso amuñu xaalis jot di joxuñu leen dara ñi ci jot dara ay juróom-ñetti junni ñu naan leen dinañ leen financer projet ba tey gisuñu dara ñu ngi dénoncer loolu moo tax ñu naan président Macky Sall d'accorduñu ak rapatriement bi da ngay fàttaliku ay 2005 wala 2007 Espagne demoon na ba def ay tool Espagne naan waaw xaw ma chaque commune ci Sénégal waaw ci lieu xaw ma de provenance des émigrés dañ fay jël ay doomu Sénégal ñuy dem liggéey ci maanaam ci toolu Espagne ñu defal leen visa politique boobu lu mu jur un échec donc mbir mi du foofu mbir mi mooy nañu créer ay emploi fii réew mi nañ ko yore yorin boo xam ne. du ñu rey yaakaar et c'est ironie du sort bu fekkee coalition ba tëddoon ba tuddoon dekkal yaakaar damay fàttali ne APR yaakaar moo ci topp APR yaakaar parti boobu moo rey yaakaar ci ndaw yi ba ñuy jël gaal parti boobu jamono ji moo rey yaakaar tas yaakaar ba ñuy jël désert du Sahara ironie di sort APR yaakaar ndaw yi amatuñu benn yaakaar ci seen réew amatuñu benn yaakaar ci état du Sénégal amatuñu benn yaakaar ci président de la république il faut ñu xoolaat kon euh, mbir yi ñu leen di gërëm euh, di leen di sant euh, ci seen teewaay comme ni ma ko waxee woon sànq ñi nga xam ne bëgg nañ def ay interview en français ou wolof avec euh, Boubacar wala voilà, avec euh, Souleymane euh, Aliou Diallo Euh, mun nañ euh, peut-être de woor d'accord euh, parce que defe naa foofu moo gën a leer def ay interview ak ñoom di gërëm Boubacar Seye di gërëm Sana Dabo di gërëm Souleymane Aliou Diallo waa Horizon Sans Frontières yëpp waa Otra Africa ñëpp ci seen teewaay di gërëm waa FRAPP UCAD yi nga xam ne ñoo fi teewoon di leen gërëm yéen journaliste ba beneen jërë ngeen jëf Thank you